bokkul ak li ñuy tudde nazi la nga xam ne aw xeet ngay waxal léegi xeetu lislaam bépp nga ne leen toog leen ci seen i kër di di xool seen i télévision wala ngeen di dégluy rajo di julli di ànd ak jumaa ji te mboolem ngiri lislaam yépp wax lu contre loolu loola àggagun ci lu mel na noonu àggagun ci euh, jàpp ma ne loolu lu mën a nekk la tey laaf laayef bi fan lay yem parce que fi ñu toll nii képp suñ diggante fii nu nekk ak Kaolack bokkuñu waxtu wu ñu julli su diggante ak Touba bokkuñu waxtu wu ñuy julli su ma la waxee ne damaa bëgg a ànd ak jumaay Touba tey toog fii di julli euh, danaa julli man te fekk waxtu ba du jot wala fekk waxtu euh, wala ñoom ñu duñ bokk waxtu daal ci gàttal naka nag ki nga xam ne dégg naa sax ku wax lu gën a garaaw lool koo xam ne dane waa Màkka ci boppam mën ñëw julli ànd ak ñoom comme que léegi seen julli mi ngi jàll ci télévision bi parce que ñoom nii ma la wax nii noonu lañ def Màkka ak Medine dañoo wut minimum ci mbooloo moo xam ne ñooy julli Touba yi ne noonu lañ def mooy wut mbooloo mu yem imaam ja mën nay julli bu àjjuma jotee mën naa xutba su ko defee ñoom dañ koy jàllale ci télévision yi nit ñi di ko seetaan waaye su fekkee dañ ne nag télévision boobu nit ñi mën nañoo toog di julli ànd ak moom loolu fan la yem fan la yem ndax ki lay wax ne manees naa toog fii ci Sénégal julli ànd ak màkk li muy wax xamu ko màkk 9h ci suba ñu ngay julli àjjuma mën ngaa toog fii di julli àjjuma 9h ci suba loolu mënut a nekk même bu dee ci biir réew mi loolu mënut a nekk euh, courant bii di dagg boo àndee ak moom di julli ba mu yàgg nga jékki-jékki courant bi coupé nooy def. maanaam yooyu ay caaxaan la su demoon ba lu mel noonu sës dañ lay wax ne nit ki ne julli ci këram na julli ci këram mais lu tax lu jariñ laayef bi lu muy jariñ bu boobaa waaw loolu loolu loolu moom loolu moom wax la joo xam ne moom moom wax ju suufee suufe la ju ñàkk solo joo xam ne dëppwut sax ak li médecin yi wax li yi nee nañu feebar bi ci boppam euh, su fekkee koor faju ko it moom du ko yokk moom maanaam koor ci boppam mën na koo mën na koo mën na koo calmer sax lañ lenn ci gëstukat yi gën a xóotal dañoo wax ne jëmmi koor ci boppam sax mën na défendre nit ki bay lu bare bare bari ci ay bactéries ak yu mel noonu du du dugg ci gémmiñam ndax lu bari luy dugg ci biir nit ñi ci lekk lay jaare ak yu ndox ak yooyu wala xeeti naan wala ki nga xam ne dafa woor daal su fekkee ne fajoo ci wutit moom wax dëgg yàlla mënu caa jëlee lor joo xam ne dañ koy ragal déedéet yooyu wax moom waxi caaxaan la